هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أقطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وخساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أخطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا هدائك وعنابا وكوائب أطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أرسلناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di amaat mbégteeg kontaan te ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quranul karim comme niñ ko doon defee ci diiran weeru koor bi yépp xam ngeen ne tey ñu ngi ci suñu fukkeelu fan suñu ñaar fukkeelu fan ak ñeent di ñaan yàlla subhanahu wa taala mën nañu li des ci koor gi bareetul waaye yàlla nañu yàlla may ñu eggale ko ak jàmm yàlla may ñu ñu màng ko yépp niñ ko commencé nii ci jàmm yàlla nañu yàlla may ñu eggalee ko noonu xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu naba i di amma yatasaalun ñu ngi woon ak yéen fi yàlla subhanahu wa taala di waxee li nga xamante ne moom la def ci kaw suuf wax nag ba yegg si ne wa futihati samaau fa kaanat abwaaban mu ne mu daal di ubbi asamaan mu nekk ay bunt malaaka yi daal di siy jaar wàcc waaye wa suyratul jibaalu fa kaanat saraaban yàlla daal di jël jël doj yi montagne yi mokkal leen doxloo leen seeni place ñu jiga fa daal di nekk yoo xamante ne nii yu mokk lay doon yàlla daal di continuer nag wax ba tey mu ne inna jahannama kaanat mirsada mu ne jahannama day yàlla mu ne man maa ko def mu nekk kaso mu nekk kaaf mu nekk ngunu boo xam ne dañ koo gaw daal di koy wërale nga xam ne dara du fa mën a lu fa xas dugg dootul mën a génn ndax lan ñeel ñi nga xamante ni yéeféer yi la mu ne li tooxiina ma aba mu ne jahannama boobu day ñi nga xamante ne ñooy ñi bew nga xam ne ragaluñu yàlla te duñu ko jaamu foofu mooy doon seen tàpp waaye ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal muy biir safaraw jahannama boobu dañ cay dugg yàlla subhanahu wa taala mu ne laabisiina fiiha axqaaban nee nañu sax fa nag sax fa axqaaban ba faaw axqaab biñ ko waxee mooy moom yàlla rek moo xam ñaata lañ fay sax ay jamono ak i heure ak i waxtu yoo xamante ni yu baree baree bari lay doon yàlla subhanahu wa taala mu ne ñoo loolu lañ fay sax ñoom ñi nga xamante ni ñooy ñi taaxiin yi maanaam ñi nga xam dañoo bew jaamu ñu yàlla dañoo bañ a jaamu yàlla ñu ne tamit axqaab bu ñu ko waxee mooy feeg àdd feeg lu soob yàlla rek moom la ñuy tuddee axqaab yàlla subhaanahu wa taala mu ne laabisiina fiha axqaaban mu ne te bu ñu fa duggee laa yaduquuna fiha bardan wala sharaba mu ne yéefér yi bu ñu duggee biir safara nee na duñ fa mos waxul sax duñu naan de waaye baatu dawq la yàlla jëfandikoo muy mos mu ne laa yazuquuna fiha duñ fa mos bardan lu sedd wala sharaban wala ndox mu ñuy naan amul ndox mu ñuy naan amul sedd boo xam ne dina leen mën a seddal ci biir safara soosu kon loolu dina metti te dina tàng yàlla mu ne illaa xamiman wa gasaaqa lu dul xamim ak gasaaq xamim nee nañ ndox mu tàng lay doon ndox boo xam ne dafa tàng ba degré bi passé ba luñ ko mënuñu koo melal fii ci àdduna li nga xamante ni degré tàngaay bi noonu lay mel mooy xamim mu ne wa gasaaqan gasaaq nee nañ mooy bu ñuy lakk waa safara dëtt bi nga xam ne mooy génn seen yaram ak deret ji ni muy jaxasoo noonu loolu mooy gasaaq bu ñu maree loolu lañ leen di jox ñu naan ko yàlla mu ne jazaa wifaaqa mu ne loolu daf fay la boo xam ne dafa dëppoog li ñu doon def xam nga yàlla bu fekkee daf laa bind sàkk la di la wërsëgal lépp loo xamante ne nii rek mi ngi ci kaw suuf moo la ko fa defal nga lànk mu ne lenn rek laa bëgg ci yow mooy nga jaamu ma bañ maa mooy nga lànk ne doo ko jaamu mu ne kon su ma la mbugalee mbugal mu mel nii jazaan wifaaqan mbugal la moo xam ne dafa dëppoog li nga xam ne moom nga def yow doomu aadama bi wala yow yéefar bi kon yàlla mu ne lan mu ne dañu ko yàlla ñooñ lan lañ def mu ne innahum kaanu laa yarjuuna xisaaban mu ne ñooñ dey yéefar yi ñoom day yaakaaruñu woon ak réglé soo leen waxaan yow mal xiyaam dina ñëw duñ ko gëm buñ leen ne yàlla dina leen dekkal duñ ko gëm ñoom rek yaakaaruñu woon ne yàlla dina leen réglé ci kaw suuf dañoo foogoon ne rek bu ñu deewee jeex na moo tax yàlla mu ne ma fay leen lii ndax yaakaaruñu woon ne yow mal xiyaam dina ñëw mu ne wa kaddabu bi ayatina kizaaban ñu weddi sama aaya yi man yàlla weddi sama alquran weddi sama yenant ak weddi mu ne waaye wa kulla shay wa kulla shayin ahsaynaahu kitaaban lépp loo gis ci kaw suuf lépp luñ mën a def ba bu ñuy nelaw bind yi ñuy bind onk yi sax yàlla mu ne man lim naa ko te def naa ko ci téere kon lii xupp la boo xam ne yàlla daf koy xuppee jaam yi daf koy xuppee yéefar yi daf leen di wan ni du ngeen ma raw mukk lépp lu ngeen def rek ahsaynaahu kitaaban bind naa ko réglé naa ko def naa ko ci ab téere denc naa ko bu yowmal xiyaamee ma génnal leen ko yàlla mu ne bu mbugal mi tàngee ba tàng xam nga lu ñu leen di wax fa duuqu falan nadidakum illa azaban mos leen mbugalum safara mii man yàlla de duma leen doole lu dul mbugal suñuy jooy bugg a génn safara si yàlla na déedéet yéen kay mos leen mbugalum safara si rek si ngeen di nekk de waaye bay man yàlla duma leen doole lu dul mbugal ci safara si duma leen génne te duma leen yërëm ndax dama leen a santoon ngeen bañ yàlla daal di bàyyi ñooñu nga xam ne ñooy yéefar yi ak li leen di xaar ak mbugal mu tar mi nga xam ne moom la yàlla wax ne moom la leen di def mu daal di ñëw nag si ñi nga xam ne mooy ñi ragal yàlla mu ñëw si ñi nga xam ne ñooy waa àjjana mu ñëw si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nanguloon moom borom bi subhaanahu wa taala mu daan ni inna lil muttaqina mafadan mu ne ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla am nañ nga ñaay lu rëy rëy rëy am nañu raw raw nañ seeni maas ku ragal yàlla bu yomal xiyaamee di nga raw say maas ndax yàlla moom moo wax loolu mu ne inna lil muttaqina mafadan ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñeel na leen ak ngañaal ngañaay maanaam ñoom day raw nañ te gañe nañ yàlla mu ne ñoom xadaiqa wa anaban ay tool yoo xam ne yu naat la tool yoo xam ne yu nëtax la tool yoo xamante ne yu sëq la te neex moom man moom laa leen defal man yàlla ba pare nag wa anaban defal leen ay raisin raisin kon lu am solo la yàlla mu ne dama leen defal ba pare wa kawaiba atraban mu ne ma defal leen ay jànq yoo xamante ne nii ñu rafet la ñuy doon jànq yoo xamante ne nii seeni ween sax daanuwut ba pare nag ñu nekk atraban ñu maase ma fayee ko li nga xamante ni moom mooy ñu ragal yàlla ak waa àjjana yàlla mu ne wa kasan dihaaqan nee na ma defal leen ay kaas yoo xamante ne nii yu fees dell la kasan dihaaqan ay kaas yoo xamante ni dafa fees dell ak njar moo xamante ni bu neex la njarum àjjana yàlla mu ne dafa gën a neex laa yasmauna fiha laghwaw wala kidaaban duñ fa dégg mbóosóor duñ fa dégg ay caaxaan wala fen àjjana bokk na ci li si gën a neex soo fa xasee ba dugg moom say noppi moom noppi gar mi rek lay doon dootoo dégg lu dul lu neex borom bi subhaanahu wa taala dootoo fa dégg lenn loo xamante ne nii lu naqari la ci nopp lu naqari la ci lépp loo mën a gis rek waaye daal li ñu fay dégg laa yasmauna fiha yàlla mu ne duñu fa dégg laxwan ay mboosóor ay caaxaan du tëgg du sabar du fecc waaye wala kisaaban ay fen moom dootoo ko dégg sa nopp boo duggee àjjana mu ne jazaan min rabbika ataan xisaaban mu nekk jazaan yàlla mu ne mu nekk fay goo xam ni min rabbika mi ngi bàyyi koo ci bos sa boroom xam nga yàlla ku mu fay rek nga kontaan ataan mu nekk may goo xamante ni xisaaban bu ñu rek la la yàlla daf lay may jox la jox goo xamante ne nii gu bëri njariñ lay doon fee sa àjjana jox goo xamante ne nii du la si sax teg benn rek la kan mooy yàlla moom nga xam ne nag moo digal lii ak di ko def mu ne rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu laa yamlikuuna minhu xitaaban mel ni dañ ne ko yàlla moom mooy kan mu ne yàlla mooy rabbi samawati wal ardi boroom asamaan ak suuf moo ko bind de li nit ñi dëgër dëgër fit gisagoo ko taxaw ne maa bind asamaan wala maa bind suuf yàlla moo ko bind ba pare nag wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf nga xam ne moom rek moo ko xam arrahmaani kooku mooy yàlla mi nga xamante ni moo yërëm ñëpp ci àdduna fii li tax mu indi baatu rahmaan bi mu bindee asamaan ak suuf su ko neexoon ku ko wedd ci kaw suuf rek doo nooyi si eeram bi su ko neexoon ku ko wedd ci kaw suuf mu mbugal la wan la diisaayu loxoom comme ni ñu koy waxee waaye moom arrahmaan la dafa yërëm ñëpp ñi mu bind ci kaw suuf mu ne waaye laa yamlikuuna minhu xitaaban mu ne yowmal xiyaam de bu fekkente ne doomu aadama yi ñëw nañ amul benn wax boo xamante ne nii dinañ ko jëmee wax ci seen kanamu boroom déedéet yàlla rek moo fay wax benn discours moo fa am te yàlla subhaanahu wa taala moom mooy def discours boobu yàlla mu ne yowma yaquumu ruuxu walmalaikatu safal laa yatakallamuuna illa man azina lahu rrahmaanu wa qaala sawaaban mu ne bis boobu mooy bis bi nga xam ne aruux day ñëw taxaw muy jibril wal malaaikatu ànd ak malaaka yi jibril mooy ñëw taxaw ànd ak malaaka yi yàlla nee na safan ñu nekk ran dañuy ransaloo ba pare bu ko roogee mu ne laa yatakallamuuna kenn du wax amul kenn ku sañ a taxaw yowmal xiyaam jël fa parole ku dul kan illa man adina lahu rrahman lu dul koo xam ne yàlla moo ko digal ne ko waxal yàlla moom bu la digalee ne la waxal di nga wax waaye ku dul ku yàlla digal sañoo faa wax wala nga jël fa paral te kat sooy wax yàlla nee na wa qaala sawaaban tooy wax dëgg rek ngay wax amul wax joo xamante ne day taq suuf wala ngay wax lii di nëbbulee wa qaala sawaaban dëgg rek nga fay wax yàlla nee na dalikal yawmul xaqu faman shaa attaxada ila rabbihi ma'aban mu ne bis boobu di yowmal xiyaam zalikal yawm booba la bis day mooy yowmul xaq mooy bisu dëgg ba buñ naan bisu dëgg-dëgg mooy bisu yowmal xiyaam waaye yàlla mu ne fa man shaa képp koo xam ne soob na ko day taqaza na jàpp ilaa rabbihi jëm ci boroomam ma aban mu nekk wéeruwaayam bee boo kuy jàpp na jàpp yàlla def ko xaritam def ko mu nekk wéeruwaayam ndax di nga taseeg moom ëllëg yowmal xiyaam yàlla mu ne inna anzarnaakum azaban qariban yowma yanzuru lmaru ma qaddamat yadaahu wa yaqulu lkaafiru yaa laytani kuntu turaaban mu ne yowmal xiyaam mu ne yaa man maa ngi leen di xuppee di leen ragalloo di leen tiitloo ci bis boo xamante ne nii mbugal dafay ñëw mbugal moo xam ne mu jege la yowmal xiyaam yàlla saa bu koy misaal daf ñuy wax ne lu jege la mi ngi nii di ñëw te xam ngeen ni lépp loo xam ne tudd nañ ko rek lu jege la te day ñëw yàlla mu ne inna anzarnaakum maa ngi leen di xupp yéen nit ñi di leen waar di leen moytandikuloo adaban mbugal moo xam ni xariban bu jege la te léegi mu ñëw soreetul ñu ne ko mooy ban mooy ban bis ak mbugal moomu bu ñëwee nu ñuy def ak nu ñuy mel mu ne keroog yow ma yanzurul mar'u ma qaddamat yadaa mu ne mooy keroog bi nga xam ni nit ki dina xool li mu jiitaloon yàlla daf ko koy wan mu xool ko xam ne lii kat moo ko jiital ndax xam ngeen ne yowmal xiyaam ku fay dem lépp loo fa fekk yaa ko fa yóbbu bu dee lu baax yaa ko yóbbaale bu dee safaan tamit yaa ko yóbbaale maa qaddamat yadaahu la yàlla wax da ngay ñëw xool ñu wan la li nga xamante ne moom nga jiitaloon ci ay jëf nga daal ñu wan la ko nag mu daal di leer naññ yàlla bu ne su ko defee yéeféer yi ak ñi nga xam ne ñooy naafeq yi mooy kaafir yi bu keroogee la ñuy wax wa yaqulul kaafiru yéeféer bi keroog danaan yaa laytani kuntu turaaban ay waay yollante koon ma nekk suuf yàlla man day su ma yëgoon sax du ma judd suuf laay nekk ndax mbugal mi nga xam ne moom lay jàkkaar lool mbugal mu metti mi nga xam ne moom lay jàkkaar lool kon mbokk yi balaa ñuy dee ëllëg di réccu naan yaa laytani kuntu turaaban nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla jéem a def suñu kemtalaay kàttan li ñu yàlla sant waaye tamit jéem a moytu li nga xamante ne moom la ñu tere li mooy amma yatasaaluun saar bi ñi ngi leen di santaat bu baax ci déglu bi di leen gërëm di jagleel nag sant ak ngërëm suñu caméraman bi nga xamante ne nii moom moo ñuy filmé muy soxna Njéeme yàlla na ko yàlla fay yiw ak Cheikh Ismaïl wax dëgg yàlla boobu ba léegi mi ngi ci tafsir yi di ko filmé filmé boo xam ne ngeen koy seetaan seetaan bu mucc ayib njéeme ñu ngi lay sant bu baax muy liggéey liggéey bu am solo ci ginnaaw écran yi di ngeen ko gis waaye liggéey bi bu jàppandee ba fii moom la ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm tamit ki nga xam ne mooy soxna Uli Dem bu Pout moom mi nga xam ne moo ñu génn fii tey ci mëlfa bi moo ñu ko solal di ñaan yàlla solal ko ci yére àjjana yi yàlla defal ko jàmm ak salaam tey nag suñu tafsiru tey bi groupe bi nga xam ne moom lañu ko tuddee mooy xalqa ummul muminina Khadija radiallahu anha nga xam ne suñu ustaaz suñu xarit Cheikh Moustapha ba moom moo ko ubbi di nuyu waa groupe bi yëpp li jël nuyoo bi teg ko ci loxo yaaxa di saanaxo mu jottali ko waa groupe bi yëpp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
Sissoko xabatu sawda ñëpp ko ràññee ci réew mi ñu koy félicité waat bu baax a baax 2009 gannaaw ba mu jàngee ca Fass Touré ba noppi la ñëw fii ci ndakaaru ubbi butigu xabatu sawda 2010 mu daal di koy ubbi Gambie 2011 mu daal di dem Dubaay dem jàngi yokk xam-xam 2012 mu daal di am lijaay sax ci médecine prophétique lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon jàngale à base de plantes naturelles 2013 mu daal di amati beneen lijaasa 2014 mu daal di amati beneen lijaasa lépp ca Dubaay ca école ba nga xam ni moom la ñuy jàngee médecine traditionnelle li nga xam ni moom la alayhi salaatu wasalaam jàngale yépp ci médecine traditionnelle 2015 mu daal di yokkiwaat xam-xam ca Chine moom Sissoko Habbatu Sauda ba mu ñëwee Chine ñëpp dañu daw topp si ko ne waaw kii xam-xamam bii kat ñëpp dañ ko war a jëriñoo mu daal di fay ñëw daal di fay def ay kéemtaan ci wàllu plante naturelle ak lépp loo xam ne alayhi salaatu wasalaam moom la doon jàngale mu daal di ubbi nag espace bu mag a mag a mag a mag a mag ca Nord Foire rond-point 26 janoo ak ko ñu yëm-yëm bi yéen ñëpp mën ngeen faa ñëw bu ngeen ñëwee dinañ leen seet seet seen yaram bu baax a baax a baax a baax a baax seet seen yaram seetantal ko bu dee da nga di jigéen jigéen ñi ñoo lay seet toppatool la sa yaram defal la ventouse mi nga xam ni moom ngeen di gis ñu koy def fépp ci àdduna bi ci réewu arab yi ñooñu am wérgu yaram am jàmm am salaam am dal bu dee góor nga tamit góor ñi ñoo lay seet lépp ay produit naturel la à base de plante jaaree ko ci médecine prophétique bi nga xam ni moom la alayhi salaatu wasalaam doon jàngale bu dee pour jigéen am nañu confiture à base de plante développé yenn parties yi ci seen yaram ay produits yoo xam ni dafay tax nga jeex ay produits yoo xam ni dafay tax nga am karaw am karaw lool am karaw ba jaaxal ñi nga xam ni ñoom nga nekkal ak ñoom nga dëkkal am nañu potu karité boo xam ni dañ ko mixé ak 15 produits yoo xam ni produit à base de plante naturelle la ak xabatu sawda mën nga ci frotter sa yaram say genou buy metti moo ci baax booy am douleur articulaire booy am douleur musculaire am nañu it xoney mint koo xam ni da ngay tux cigarette te koo bàyyi buñ la joxee xoney mint daanaka cigarette da lay génnali ko nga dëdd ko benn yoon am nañu pompe miracle pompe miracle nag duma leen wax lan la xool leen ko te ngeen dem ci Sissoko Habbatu Sauda mu wax leen lan la lépp luy toroxal seytaan ci sa yaram luy dàq seytaan ci sa yaram lépp lu indi seytaan ci sa yaram da koy dàq te dindi ko bu dee ci ngóor am nañu ay secret pour góor ay secret yu am doole nga doon góor tëgg ay secret xabatu sawda loo xamante ni dañ ko jàng te lépp à base de plante naturelle la bu dee da nga am jafe-jafe nelaw bu dee da nga am stress bu dee da nga am ay jafe-jafe wérgu yaram ñëwal seet suñu boo ñëwee dinañ la dugal toppatoo la seet la ubbil la dossier di la toppatoo bu baax Sissoko Habbatu Sauda ñëpp ko xam ci Sénégal ñëpp ko xam ca Gambie ñëpp ko xam ca Nouakchott ñëpp ko xam ca Bamako boo amee jafe-jafe constipation buñ lay wax naan da nga am sukkar wala da nga xorom jafe-jafe yooyu yëpp bu nekk am nañu bu koy saafara xaw ma kan de man duma xeeb sama doomu réew xeebu ma ko benn yoon ndaxte kat ba mu demee Chine dañ ko topp ndiiraan ba mu demee Dubaay dañ ko topp ndiiraan ba noppi ñooñu di fa jóge di ñëw di jël si si xam-xamam kon nag man xeebu ma ko dem leen gaaw mu defal leen consultation xool leen woo leen ko ci 77 661 52 32 wala 77 866 34 78 wala 33 820 34 86 Sissoko Habbatu Sauda ca Banjul ca Serekunda ca Bamako ca Nouakchott ca Bakel fii ci Ndakaaru seeti ko mu dalal sa xel dalal sa xol sa wér-gu-yaram gën a am solo Sissoko Habbatu Sauda ñi koy wër a bari ñi koy seet a bari ñi koy topp ñoo bari waaye lépp à base de plante naturelle ak li alayhi salaatu wasalaam jàngale Sissoko Habbatu Sauda jërëjëf ci sa laa biir ak sa baax ak sa bokk ak say toppatoo doomi réew mi ak doomi àddina